Euh, merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Dakar Buzz euh, tey nag ma am mbégte encore ak contentement dalalaat xale wala ma seet ci ko ci biir këram mu doon koo xamante ni bon ci ci man bi ma koy xam ci milieu cinéma la ñu xamante ma nag moom ñu bokkoon benn projet waaye bokk boobu ñu bokk projet ci biir euh, ma gis ci moom ay valeur waaye ma gis ci moom aussi tamit jikko yu ma neex ak jikko yoo xamante ni neexuma tey yooyu yëpp dañ koy war waxtaane man ak moom mu doon xale boo xamante ni génn seen petit gaale bi mu génnee seen petit gaale après fay na day tàkk di fay bon peut-être essence samay jeex wala gasoilam yooyu yëpp dinañ ci waxtaan euh, bu ndaw ma bàyyi la nga nuyoo ko euh, Sénégalais yi ak fans yi nga xamante ni ñoo lay bàyyi xel à travers Dakar Buzz. waaw ah, asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu. Mhm. Euh, di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi seetaan. Mhm. di nuyu waa Dakar Buzz. Mhm. di am kontaan si sa ñëw bi tey. merci beaucoup euh, bu ndaw bala ñu bala ñu commencé est-ce que mën nañu xam fan la carrière bi débuté parce que ju ci bari dañu la gis rek automatique seen petit gàll lañ la découvrir euh, tey jii est-ce que avant ngay dugg seen petit gàll am na foo jot a jaar ci musique wala seen petit gàll ñoom ñoo la taal. bon bon avant laa nekkoon. daayra lan daayra waaw daayira xaadar yi. ok ok. ci daayira xaadar yi laa nekkoon. Mm-hmm. après nag euh, ci la Petit Gallé ñëw amoon benn compétition bi ñu waroon ko def euh, présélection yi biir Tamba. Mm-hmm, mm-hmm. du coup si la ci lañ ma jël. ci présélection yi comme ça si laa ñëw représenté Tamba. ci émission Sen Petit Gallé. ok euh, mais nga mën a nekk ci daayira seen Petit Gallé ñëw récupérer la nga dem seen Petit Gallé alors que daayira bi euh, peut-être euh, foofu c'était spirituel da nga gis ni carrément fële avenir amu fa fii la avenir am moo tax nga bàyyi daayira bi ñëw ci Sen Petit Gallé. non du loolu sax xam nga daayira bi c'était c'était juste parce que dañoo nekkoon ci daayira comme ça da ngay nekk xale. Mhm. nekk ci daayira di génn di dem rek. Mhm. Petit Gallé ñëw ma war a xam nga moom lu nekk sa li nga war a dem. ak li mhm. nekk sa wërsëg ala kulli ànd danga fay dem. danga fay dem donc je pensais que loolu rek la. ok ma nekk xale ñëw am loolu aussi nag neke euh, compétition boo xam ne xale affaire u xale la. Mhm. vacances la woon ñu ñëw divertiru après jeex na ku nekk continuer say activité ok mais naka la ko parents yi doon dundee parce que aussi Sénégal euh, doon na boo xamante ni sa doom bu bëggee nekk ci beneen yoon bu bokkut ak yoon bi nga yoon bi nga bëgg mu tegu ci peut-être dina am ay difficultés est-ce que sa papa ak sa yaay doon na am ay xëccoo si diggante bi. non non non franchement. lan moo tax da li loo bëggoon la ñu jàppale la ci wala. parent d'abord avant tout nit ki sa doom je pense que li mu bëgg rek nga koy jàppale. Mhm. te comme li ma la ko waxe woon rek affaire bi compétition la woon. Mhm. vacance la foo la. bu mhm. jeexee jeex na. donc foo la woon rek dem nañ foo yi après jeex na ñëwaat nañ. lan lan moo tax nga arrêté sa jàng. ku lox dama arrêté jàng da nga arrêté jàng bu ndaw jàngu. ku lox dama arrêté jàng non arrêté nga man ma non mais ah. attends bu ndaw da nga doon jàng. seen petit gàlle après seen petit gàlle peut-être ñu ci bëri euh, bu ndaw dafa arrêté études parce que musique bi la bëgg a suivre alors man je me dis ak li nga xamante ni moo di étude mën nañ ko cumuler parce que gis nañ say morom yoo xamante ni ñi ngi waay ba léegi mais ñi cumuler ak ñu koy boole ak mais yow loolu nga dégg du man maa la ko wax de yow nee nga loolu ok est waaw léegi ñëw loolu laa bëgg mu leer man ah, damaa bëgg lépp damaa bëgg lépp leer <laughs> yow laajoo yaa ngi jàng ba léegi. maa ngi jàng euh, looy def actuellement ban classe ngay def. maa ngi def ndaw kañ nga fukk. <laughs> yow kii no kii daa mel dama ndaw defal ndànk. <laughs> yow man bi yow man ñoo bokk tournage man ak yow ma gis la ngay dem répétition dem studio nga ne ma terminal ngay def cette année ci. waaw mais mënuñu accumuler les deux comme ni nga ko Ah, waaw yaa wax loolu yaa tontu sa bopp. non non man non man tontu ma sama bopp de yow yaa war a tontu spectateurs yi. <laughs> parce que yaa tontu sa bopp. non yow période bi ñu xamante man ak yow man gisuma la ngay jàng. xamante lan la ah période tournage la da nga oh, doon. dañ doon dase tournage non non defal ndànk da da a ma daal ba ma dugal. non dugalu ma damaa bëgg mu leer. bokk bu jeexee jeex mhm. man maa ngi samay activité yow yaa ngi say activité mhm. donc t'as pas pour laajte ma. donc voilà soo ma laajte ma tontu pourtant li ma fi fii ñëw parce na jour yooyu am naa am naa cours. non jour am na cours parce que élève terminal élève non mu ndaw yow daal waaw daal yow daal ma laajte nga ma tontu naa ak ok waaw léegi dégg waaw léegi xam nga samedi ak dimanche samedi ak mercredi lañ doon tourné te heure yooyu noonu day fekk élève terminal yëpp nekk di def cours d'accord on passe euh, léegi yan yan indifférence nga doon am ak sa manager yi parce que bu ndaw bokk nga ci actrice yi nga artistes yi nga xamante ni yaa ëpp ay manager ci Sénégal. ku lax ah sa manager yi nga nekkaloon ne na nga bëri problème. <laughs> yow daal tey da ngaa ñëw daal pour dugal. ma la dama ñëw pour ñu waxtaan. parce que sa manager yi ne na bari bëri problème sa manager yi nee rek yow li la neex ngay def respecté woo ma ne nag peut-être xëy na euh, dafa dafa am loo xamante ni moom loo moom la manager yi di bëgg ci yow te amuñu ko ci yow moo tax peut-être ku ci nekk di la jéem a qualifié. non man awma benn problème ak sama manager te mosuma am boole ay manager yu bëri amoon nga sama benn copain boo xamante ni sa manager la woon. mën naa cee eh, sa benn sa benn copain ba. parce que foog muy leer de. non sama benn copain. sa benn copain na leer rek tudd mais jarul may tudd trop. en ah, tout cas sa manager la sa manager la woon. man xaw ma ki nga wax boo ñemut leeral man. xaw ma non mais xam nga tey dafa am loo xamante ni mënuñu fee tudd toog di la lim manager yi mais manager dañu bari woon tellement. non non. non da ngay lim kay yow boo demee ba nga ne. mais c' est dafa mel ni ne nii da dugg ci sama. sa clip bi nga def nii sa affaire yi di feeñ nii ba gars yi naan ligue bu ndaw clip bam bi mu def warut a moom moom maa ngi assisté moo assisté tournage bi ki tourné clip bi Danik Alma bi gaañ la. Hmm. waaw yow yaa ngi dugg fii génn fii yow daal fi mu ne nii yow xaw ma mën nga bëgg. tox ci sama maa ngi wala non non joxe sama sama yaa ngi génn fii la da nga ci fii ma tontu la fii. bu ñu paree ci loolu ñu dem ci leneen. peut être ba ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci affaire management bi. Ah, voilà manager yu bari lan moo ko waral. aw ma manager ni lii ak lii nga am ca manager nga ne ma kii ak kii. man xam man attends man xam naa ci kenn koo xamante ni sa manager la woon rek sa bon période bi nga xamante ni contrat bi ñu nekkoon euh, ci ci série bi moom moo moom moo géré woon contrat bi. ah mais kan la. Ousseynou Ousseynou Dia. waaw Ousseynou Dia mais la c'est quoi le problème yéen ñaar ba ngeen bàyyante. non nee na ma nee na ma léegi manager tu la. parce que waaw loolu ak bàyyante moo bàyyante dafa rëy liggéey la bu jeexee jeex na. léegi c'est quoi le problème. amul benn problème kooku sama frère la mënuñu am benn problème. ok bu mm-hmm. ndaw da ngay jaraaw nii rek. <laughs> mais depuis génn seen petit gàll tamit bon euh, maanaam produit yi nga def bëriwul pourquoi tu n'es pas productif. bon ba ma génnee petit ba ma génnee petit gàll. Mm-hmm. dama stand by lan moo lan moo waral stand bi. du ñëwaat naa nii. non ñëwaatoo de parce que da ngaa ñëw ba way fi Lions yi ñu door Sénégal après nga ñëw seen euh, Saint-Valentin ñëw nga génneel ni benn son boo xamante ni bon ñeen ñu apprécier nañ ñenn ñi apprécier wuñ. voilà waaw loolu c'est normal ci biir àdduna ñëpp mënuñoo ànd apprécier. Mm-hmm. bu ñëpp àndee apprécier war ngaa xoolaa sa bopp. Mm-hmm. donc te ci ci loolu sax ngay mën a jàng pour mën a gën a def lu baax. te xam lu di di gën a yokk say affaire. Mm-hmm. donc waaw ñenn ñi ne musique bi amul xaalis comment tu fais pour vivre parce que aussi euh, bon bien vrai que contrat yi taxawagul ni mu war a taxawee duggagul ni mu war a duggee aussi am ngay besoin da ngay fay location euh, da ngay fay da ngay fay ndox. da ngay fay bu ndaw da nga may déglu. <laughs> <laughs> sa dag nga am bii nga nekk yow la laay asib seede yàlla non c'est que xam nga xale yu ci bari dañuy bëgg a mel ni yéen tey jii buñ leen gisee ngeen ngeen ngeen ngeen nekk ci oto bu rafet ki moom clip ñu jàpp ni yéen ko moom. buñ leen gisee nga sañsee ci kaw ba ci suuf euh, peut-être na am ay partenaires ñoo leen koy may wala nit nga jënd kook sa xaalis mais xale yi nga xam ne dañu dañ leen di def ay références des fois dañuy dañuy dañuy euh, dugg ci erreur yoo nga xamante ni par exemple euh, du du du milieu bi moo ñu koy du maanaam du xaalisu contrat bi ñuy liggéey ci musique moo ñu koy jox. erreur comme nag. genre ñii dañuy bëgg belle vie. ba ji dekk ci appartement wala ñu dugg ci loo xamante ni après mën na leen indil yeneen problème àdduna moom man dèjà soo nee erreur rek dañuy dugg ci erreur bam ça veut dire que yow dèjà yaa ngi ñuy defe ne waaw ma man ah, man ah, defe niru yaa ñuy defe ni parce que soo nee erreur dañuy dugg ci erreur rek ça veut dire que ñun aussi yéen ñi nekk ñu ngi ñu ngi influencé xale yi ci loo xam ne voilà c'est attends dèjà waay bon la je je dis vrai parce que yéen yéen ñi nekk ci milieu bi fii ñu ci bari euh, te jii yéen seen seen seen vie yéen a ko saam ci mbedd bi ñu ci bare non attends non ñu ci bari ñoo ko sàmm parce que seen vie de dañ koy wane ci mbedd bi buñ amee problème ak ak dañ koy dañ koy waale fii de gauche à droite loolu loolu la ñuy Mm-hmm. man daal ñun ñoo fi nekk te sama sama je pense que en ce moment man nekkuma fi di waxal vie kenn. Mm-hmm. ci man li may si li ma mën a si li ma mën a basé wu. mooy mm-hmm. man ci li nga may wax. ak man ci ci si sama carrière. man ci li may yëngu. ci loolu laa lay mën a toot mais quant à pour mën a pour mën a wax ci vie wu keneen. laa man waxuma ci pour toll nii ba léegi man man commencé gu ma ak yow émission bi man damay damay nuyoo nii rek. amul lii nuyoo la parce que fi ñu a ñëw man ak yow après lii mooy gën a danse lii. tey jii naka ngay def pour survivre. waaw déjà maa ngi ak samay famille te en nga dëkk nii sa kër famille la. sama kër ah man de déggoon naa ni dang nga fee da kii la de. yow déggoon nga daal yow déggoon nga rek yow daal tegagoo sa bët parce que ñun tamit bu ma bu ma tegee sama bët après loolu bu ma tegee sama bët loolu sama sama diggante ak yow la parce que tu es une sœur. peut danañ danañ def le tout ba ba sàngalu sutura mais tey li nit ñi di wax vraiment euh, def fois ak li ñuy gis ñun du doon benn. te donc dafay jot bu ngeen toogee ci bu ngeen toogee caméra yi tiim leen euh, sénégalais bi xam par exemple buñ dee dégg ñu naan bu ndaw ah, avec euh, Elvis seul wala bu ndaw el def day def lii day def lii c'est le moment où jamais nga toog ci télé bi peut-être du pour justifier wu mais pour Sénégal yi xam ni carrément euh, tey jii le li ñuy wax ci yow ak li nga xamante ni moom lañ fekk sa biir kër c'est euh, c'est opposé parce que suma ma juumal ki ma tëjil bunt bi bu doonul sœur ci yow bu doonul sa petite sœur sa grande sœur lay doon donc il faut que Sénégal déjà da nga wax ci sa sa biiru wax leen mhm. loo xam ne nee nga carrément lii nit yi di wax ak ñun lu ñuy gis c'est pas la même chose <laughs> kon déjà yow yaa ngi firndeel benn affaire comme parce que nit yi dañuy wax parce que fi mu ne nii tey ñun ñoo opté showbiz mhm. te ku opté showbiz foog nga foog nga foog foog nga am boo xam ne esprit ouvert la mhm. parce que di nga gis lu positif di gis lu négatif mais yow tout le temps focus ci sa affaire yow xamal exactement fi nga bëgg yegg fi nga bëgg jëm parce que fii amul ku nekk koo xam ne duñ la doo am baatu ginnaaw. tu vois <laughs> mais da ngay nekk ci sa ci sa objectif focus ci. Mm-hmm. tu vois après yow lu ñu lay mënti waxal yow de toute façon daal fi nekkal ci sa benn lancé. Mm-hmm. je pense que tey nga nekk ci lancé boo xam ne dafa positif. ak lépp lu mun mënti wax yow nekkal ci sa lancé boo mm-hmm. après nit yi dinañ dinañ dinañ gis luñ bëgg a gis luñ bëgg a gis dinañ ko gis luñ bëggul gis aussi tam duñ ko gis mais yow nekkal ci benn lancé. je pense que loolu moo ëpp solo. ah c'est wax na dëgg te xam naa da nga ni Abdou Saliou mi li ma ko xabal ban tamit te ma ko wax waaye amul benn problème li a xamal lépp du wax lépp <laughs> mais comment tu fais euh, nga am papa joo xamante ni peut-être euh, moom moo la jiitu ci milieu bi dégg naa sa papa aussi tamit euh, c'est un monsieur qu'on respecte dans ce milieu naka ngay def pour pour pour pour gérer ko moom mi nga xamante ni moom moo la jiitu ci milieu bi mu am ay parcours nga xamante ni def na ko tey jii yaa ngi dégganteeg moom ci sa wàllu carrière wala peut-être da nga ni ah sama papa wàllam wéy na naa continuer sama yoon gérer sama bopp mm-hmm. déjà maa ngi koy nuyu moom. Mhm. moom nga xam ne moom aussi mi ngi may jàppale ci lépp te bu ñu jàppee ba tey bàyyiwul. tey bu ma demee ba am courage wala parce que tey amour di nga ko am. Mhm. mais tout temps des fois mun nga gis yenn ay xaw a découragé. Mhm. comprendre nga mais surtout fekkee am nga parent yoo xam ne tout le temps ñu ngi lay encouragé te loolu dafa am solo. te côté boobu moom macha allah am naa parents yoo xam ne ni en fait ñu ngi may comprendre. tout temps di ma wax nii ak nii la di ma tette. Mhm. mais aussi di ma xamal lu bëri. Mhm. comme ni nga ko waxee moom aussi tout le temps lu ma am xalaat parce que euh, xalaat du tuuti te man ñoom laa am mënuma am lu leen sut. sama papa di ma encouragé di ma jàppale ci yu bëri xalaat du tuuti. Mhm. te man mënuma am lu leen sut. lépp lu ma am lu ma xalaat wala li may waaj def dama leen di woo ah papa lii ak lii. mu jox ma xalaatam donc parce que ku la jiitu ci àdduna moo la mu la xelal. dëgg la. comme sama papa tout le temps lépp lu may def duma ko ci génne. parce que mhm. xale laa aussi te dama soxla ñoo xam ne tey ñoo nekk sama ginnaaw ñoo xam ne ni peut-être ñoo ma ëpp expérience. Mhm. ma jàppale ci yu bëri di ta di ma di ma ma di mën a tette daal. Euh, ñu ci bëri nee nañ euh, booy nekkoon seen petit gallé dañu raté seen vie est-ce que yow da ngay confirmer loolu euh, wala tey jii da ngay da nga naa da nga leen di wax li ñuy wax amul parce que ku ci nekk ci yéen tey jii ñi jël nañ beneen yoon ñi bi ñu jógee petit gallé am na ci leneen lu ñu nekk ñii ñi ngi resté fi ñu nekk ba léegi ñii dañoo suulu arrêtez sa vie Mm-hmm. donc ratisse civile moom je ne pense pas nit ki dina mën a dina dindi nit ki sax lay wax. Mm-hmm. pense pas que nit ki dina mën a toog ba mën a rate vie parce que mm-hmm. fii tey ku nekk am nga benn affaire boo xam ne bëgg nga ko. nit ku nekk yow en personne tey am na benn affaire boo xam ne yow moom nga bëgg. mooy kon nit ki mënul nit ki ne dafa dama rate dama dama dama rate sama dafa dafa rate vie nit ku nekk am nga loo xam ne ni peut-être tey parce que tey musique musique la show show biz la am na ñoo xam ne tey ko continuer am na ñoo xam ne tey nekkoon nañ ci mais bëgg nañ ci génn parce que bëgg nañ nekk ci si leneen nit ku nekk am nga sa vie donc kenn ratewul vie am fii kenn mënul dox ci àddina di raté sa vie donc mm-hmm. voilà nit ku nekk dafa am loo xam ne peut-être moom ngay def sa priorité. waaw xam nga tamit waa Sen Petit Gallé ñu ci bari dañ leen di euh, dañ leen di dañ leen di collectif que ni euh, ñenn ñi ñii dañ leen di dugal ci affaire ñàkk fayda ñii ñi part en dehors bi. peut-être ñi dañ leen ni macro dafa am yooyu noonu te yow nga jaar fa te ñu ci bari loolu ñu jàpp Sénégal yu ci bari loolu la ñu jàpp est-ce que da nga mos a lu mel noonu. non doonuma loolu kenn macro ma kenn dunduma loolu daal franchement. mosoo mosoo mosoo jot ay proposition canapé ci ci milieu bi nga nekk. gis nga ci àdduna. Mhm. Hmm? Euh, nu mu koy waxee rek. nit ku nekk. Mhm. yow yaay am say principe bopp. yow yaay xam li nga bëgg. Mhm. xam fi nga bëgg a mhm. yegg. Mhm. xam exactement aussi tam fi nga jóge xam ne aussi tamit jigéen nga. te milieu showbiz du loo xam ne ni day continuer. parce que tey ñun ñëpp ay jigéen lañ. comprendre nga tey nous sommes appelés à être. de mères de famille comprendre nga yore ay doom mhm. donc tout le temps lu ñuy def nañ dañ buñ ci sóoraalee ëllëg rek dinañ mën a xam lu ñuy teg fu ñuy teg suñu tànk mhm. comprendre nga mhm. man loolu laa loolu noonu laa ko jàppee moo tax lépp looy def rek da nga ciy ànd ak sa xel comme ça nga xam ne pour ëllëg doo ci am woy boo xam ne ni da lay topp lan nga ci dund loo xamante ni euh, tu mu metti la lool ci milieu bi parce que am na artiste am na ñoo xamante ni bi ñuy door a débuté bon peut dina metti bu ñu demee ba ci biir dina neex mais bu ñu demee ba ci biir encore dina gën a metti parce que dinañ ci gis lu ne dinañ ci dégg lu nekk. waaw xam nga dèjà àdduna dara yombul. musul yomb dara musul yomb mm-hmm. bu yombee sax war nga xoolaat sa bopp. Mm-hmm. chaque jour yaa ngi dem chaque jour combat la bi ngay bi nga bi nga war a bi nga war a battre pour teg feneen. Mm-hmm. pour teg leneen. donc euh, boo xamee ni àdduna dara yombul rek. donc lépp loo xam ni dund nga ko ci lu métti rek da nga war a jàpp ne lii expérience de vie la pour ba ngay teg sa tànk feneen. donc loolu rek la. question bi nga xamante ni du ñàkk ba ñu dugg. Mm-hmm. sa digganteeg Dieyna Baldé. Mm-hmm. Euh, mënuñu si ñàkk ba a parce que euh, problème bi mu fi amoon euh, déggoon naa dégg naa que ni ci nga bokkoon que sax loolu moo tax sa carrière gën a ralentir parce que danga dafa nekkoon ci affaire de yoon nga bokk ci ñi nga xamante ni tey jii bi loolu di am ñi bon ci ñu ko fekkee woon ci nga bokk te aussi tamit nee nañu ki nga xamante ni moo yoroon téléphone bi di filmer c'était bu ndaw. <laughs> bàyyi maa ngi nuyu Dieyna boobu sama xarit ah, sama doomu nday euh, ah sama lépp <laughs> déggal yow yaa ngi may dugal bu ndaw mm. da nga nekk mm. euh, te lii ma lay wax nii du benn yoon du ñaari yoon lañ koy dégg mm. am na ci ñoo xamante ni ba léegi ñu ngi koy continuer di wax te bu ma la rusul bu bu bu bu fekkee ni wax dañuy dégg dindi man ma suñu yëre présentateur bi. Mhm. tu es une sœur pour moi. Mhm. te tey jii li ma yéene sama bopp ci lu baax moom laa lay yéene. dëgg nit ñaa ngi wax que ni loolu bi mu am fa la fekk. Mhm. que ni sax am na ñuy dem ba ni sax da nga ci am am nga ci am nga ci condamnation ñu te da nga ci prison. waaye hmm. sii. ay waay donc yow ak beneen xarit bi baax sa bi baax sa doom rek yëg naa yéen ñaar da am problème yu rëy ngeen ci amoon voilà ñi ne après jéenaa da leen a des da leen parce que yëgatu faaleetu leen xamatu leen ci lu mu nekk affaire yu mel noonu. déjà man dugguma prison xaw ma luy prison xamaanuma prison dugguma prison maa ngi nii toog. Mm-hmm. Mm-hmm. filmer damaa xam luy filmer a ah, ah, xaw ma lool non ah. non non xaw ma loolu def ma loolu xaw ma ci dara amuñu benn problème maa ngi déggante moom sama clip ba mu génnee sax moom ma njëkk message ne ma félicitation li nga def nice na trop aw ma moom benn problème <laughs> sama clip laa la wax ba mu génnee récemment message na ma moom ñëpp la message parce que waaw message dama dañ la gëj a gis dañ mhm. dañ la a gis te dañ la namoon parce que mhm. li ngay génne fan yi yëpp kenn xamul lu mu doon mais li nga génne mujjee génne nii neex na aussi tamit sañse ga ci ci son bi am na am am na am na punch parce que li nga woy c'est c'est l'amour mais mhm. nañu taxaw foofu marqué point tuuti bu ndaw dafoo dina jàpp la man du ma sa morom yaa ngi may dégg émission bi la ñuy ay mbéj yu metti yow doo ma bàyyi. non ah, xaw ma li ngay wax. li ngay wax xaw ma ci dara. li ngay wax xaw ma ci jàll xaw ma ci dara jàllal ci leneen waaye. non da jàll ci leneen nag ndax li ngay xaw ma ko. non parce li ngay wax non ba ma tuumaal waaye. non man man maa ngi nii. defuma xaw ma xaw ma li ngay wax xamaanuma li ngay wax ba ma dugal ngir yàlla xale laa ci yoon laa ne. wax ma ci sama carrière ñu avancé. mais man xaw ma li nga wax mais li xaw ma ko. kon jey naa jour bi ñu koy kii muy film Diop Isaac man li ngay xaw ma ci dara franchement li ngay wax xaw ma ci dara li ngay xaw ma ci dara. voilà nañ ñëw ci carrière bi. Mhm. Euh, tey jii euh, lan nga influencé pour def ko parce que gis nañ ni. bon yenn artistes yi ñi génn dem Kolda def ay concert ñi mhm. génn dem Kaffrine gis nañ la dem nga fi dem nga fi fële Tamba mais mhm. concert boobu amutoon kii ah. amutoon nag amutoon public de te Tamba gi nga man man aw yow da ngaa nga demoon ba ci concert wala ah yow man man man ma dëkk Tamba waaw génneel ma loolu jeune famille là-bas eh, waaw xoolal dégg naa moo des ah li ngay li ngay wax déjà loolu noonu génne loolu déjà en plus mhm. man dama ñëwaat jël sama carrière solo xam nga déjà ci groupe lañ nekkoon ñun ñëpp nekkandoo Petit Gallé du dëgg ma génn ma ma jëlee sama carrière solo yàggul bi ma jëlee sama carrière solo yàggul je pense que deux mille deux mille vingt deux bii la donc xam nga yàggul non nee naa damay stand bàyyoon Petit sama kër la foofu duma fa mës a génn sama kër la no dañ mi ngi leer man maa ngi lay wax mu leer nee naa la sama carrière solo laa jël waa sama carrière solo laa jël mhm. Mhm, mais taxul ba tey Petit Gallé sama kër la voilà mhm. euh, ah loolu nga wax dama la ne li nga wax noonu mbaa am nga ci preuve génne ko loolu laa la wax mais lu tax Tamba nekk sa fief te mën a woote mu fees ah mais lu la wax du fees Tamba fu ma woote man la ñuy bégg heure bu ma wooyee dañuy ñëw parce que doomu Tamba donc hmm. dañuy ñëw jàpp ci affaire ba mu dëgër. ok kañ la ñuy xaar euh, album maa ngi ci SB Kane comme nee naa la ñëwaat naa te sama carrière solo laa jël donc loolu rek laa am pour mën a bëggal Sénégalais. bu ma la ah, xool ma xool ma rek <laughs> xoolee tamit leneen laa gis ci waaye gisuma album. ah mais mi ngi ñëw bu ma génnee léegi nga gis rek après mu leer. li nga xam après nga jugé sa bopp. fii ak koor gi mën nañ xaar nga génne waat beneen single boo xam ne. bien pourquoi pas. bu koor gi jeexee rek dañuy enchaîner waat incha allah. comme inspi ñu ngi ci promo kii ba bu koor bi jeexee rek. premier son bi eh, sama clip bi génn bi ne. Mm. Euh, voilà son boobu ñu taxaw ci parce que gis nañ bu ndaw ñëwaat ak lu bu bees ñëwaat gën a sexy voilà euh, fan nga jëlee moyens yi def clip bi. fan laa jëlee moyen def clip bi wax naa la ko depuis sànq. nee na wax naa la nee naa la carrément man déjà samay parent ñi ngi sama ginnaaw di ma soutenir. Mm-hmm. yaa ngi dégg en dox de mes yaa aussi ñen ñeneen ñu nekk sama ginnaaw ñoo xam ne tey bëgguñu bëgguñu ma leen di fësal tu vois ñu ngi sama ginnaaw di ma jàppale. ñeneen ñi mooy ñeneen ñi ñu ngi sama ginnaaw di ma jàppale ñoo xam ne ñu ngi ci milieu bi. mbaraan lan moo yow arrêtel arrêtel arrêtel man xale laa dama xam loolu <laughs> xale laa xaw ma loolu <laughs> ah! xale laa xaw <laughs> xale laa xaw loolu. Mm. Euh, mi commencé yàq réew mi te déjà suñu dëkk jàmm lañ ci woote. Mhm. ñun jàmm lañu xam ndax ambiance foo kafree lañu xam. Mhm. ku ñu woo ci jàmm ñu wuyu si la ba ci jàmm rek. tu es avec euh, Sonko kenn maa ngi réew mi rek. réew mi moo la ñor. lan moo waaw mais suñu dëkk am jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm xool yi di fiix daal ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm daal comme ku la dëkk bu la dëkk bi ñoree kay loolu rek ngay ñaan dëkk bi di am jàmm la paix. sa relation ak sa yaay parce que dégg naa ni sa xarit la. Euh, mm-hmm. sa la mm-hmm. euh, tey jii réew ñu gis ni xale yu ci bari respecté duñ seen wajur ngi taxaw ci réseaux sociaux di boo dee gis loolu yow nga am affinité ak sa wajur bu jigéen quest waa déjà comme ni ma la ko waxee nit mënul am lu sut waajuram. Mm-hmm. man lépp lu may waaj a def comme ni ma la ko waxee man muy sama yaay muy sama pap Mm-hmm. parce que sama yaay laa am mm-hmm. dama mën a am lu ko sut mm-hmm. donc lépp lu may def moom laa ko war moom balaa ma ko diis keneen moom laa ko war a njëkk diis man sama yaay laa am moom laa am te fii ku nekk sax sa yaay nga am donc mais man moom sama yaay laa am mooy sama lépp mooy moom laa moom mooy moom mooy sama complice lépp lu may def lépp lu may dugg moom laa koy wax euh, dégg naa loolu c'est vrai takku suuf ah. non ma de suuf non musuma am jëkkër man daal man Abou Sané man je comprends pas <laughs> non man dégguma loolu non aw ma ah, takkuñu ma benn takk suuf mm, non non lu tax may takk takk suuf tamit may doomu jullit ah mais doomu jullit rek lañ takk ah, ma takk suuf franchement am jëkkër takkuñu ma takk suuf <laughs> message baa ngi nii nee na ma bul fàtte takku suuf <laughs> ah, ma takku suuf maa ngi nii non ça va mais takkuñu ma takku suuf. voilà mm. euh, lan ngay lan ngay lan ngay wax Sénégalais yi parce que aussi tamit yéen bëri ngeen trop xale yi bëri nañu. Mm. ku nekk ngi génne ku nekk ngi way mën nañ xaar sa featuring ak Dieyna Baldé mën nañ xaar sa featuring ak baay Mass. Mm-hmm. mën nañ xaar sa featuring ak Dieyla ak yeneen artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. bien sûr parce que ñun déjà comme ni ma la ko waxee lenn rek moo ñu ñor muy bégal suñu réew. Mm-hmm. yëkkati suñu drapeau te ñun ñëpp benn objectif bi lañu am mooy hmm. suñu dëkk bu ñu gisee ni que lii dafay neex sénégalais te buñ ko defee dafay neex sénégalais dañ koy def hmm. parce que ñun ñëpp benn esprit bi la ñu am hmm. muy bégal suñu réew kon donc pourquoi pas mag ji kooku sama frère la. c'est que bàyyi leen ngeen nekkee nit en relation mu leen di jël si télé bi naan ay sama frère. yéen yéen yéen neex ngeen. <laughs> ñu ngi wax Fallou nga ni frère la ñu wax sa Dieyna sa digganteeg Dieyna nga ni sa sister la ñu wax sa digganteeg mag ji nga ni sa frère la. mais looloo am Fallou sama frère la mag ji sama frère la. ñun ñëpp nekk ci benn milieu bi ñu ñu nekk ñu baax. ñu nekk ñu baax. waaw kon voilà c'est ça kon jeex na. man xaw ko mais mhm. sama frère la. li ma woo di ma conseiller defal nii defal naa defal nii donc voilà. non sama frère la ah, maa ngi koy nuyu non jolante wuñ sama frère la. non non c'est juste bu amee bu xam nga affaire yi comme nee naa la ouvert d'esprit la ku nekk boo gisee sa moroom gis lii sa mi ngi koy def mun nga mun ko cee yokk benn idée danga koy woo ne ko eh lii dafa parce que loolu la. Mhm. pour mu nice comme ni ma la ko waxee ñun lenn la ñu am muy bégal suñu réew yëkkati suñu drapeau mhm. donc bu ma gisee lépp loo xam ne comme yow nii tey su ma gisee benn affaire boo xam ne boo ko yokkee ci sa lii dafay neex mhm. donc dama lay woo ne la dafa lii dafa laa boo ko defee lii dina gën a nice pourquoi pas du gën a nice comprendre si loolu kese la donc bu ma woowee c'est c'est ça dina ma woo yokk ma conseil man aussi su ma amee leneen lu ma ko mën a yokk yokk ko parce que àdduna loolu la Mhm. ci ban actuellement. Uh, non actuellement ci benn maison de production. E mhm. bon maison de production su ma gisee lom lu ñuy def mu arrangé ma. Mhm. man aussi tamit lu may lu may def mu arrangé leen donc pourquoi pas mais en ce moment nekkuma ci benn. ban label sa benn label yoruma noonu laa lay expliquer sànq. noonu laa la expliqué sama sama carrière laa jël mm-hmm. mais su ma gisee lenn loo xam ne benn maison de production genre def nañ lu bëgg nañ contacter nañ ma tu vois. voilà actuellement nii nga ni nekkoo ci benn label. non non. lan moo tax. da nga sentir nii dañ lay tardel wala danga nga da nga bëgg a gérer sa bopp. non du question de tardel wax naa la ko sànq ci say bi sama biir wax nee naa la carrément su ma gisee ñoom lu ñuy job buñ ma proposé fekk lu ñuy wax ñun ñaar yëpp euh, cohérent ànd donc pourquoi pas parce que loolu rek lañu am liggéey rek lañ bëgg te liggéey ku ñu woo ci liggéey dañ la ci wuyu donc Euh, mot de la fin parce que yaakaar naa ne li ñu cërale woon ci waxtu jeex na comme sama caméraman dafa ñëw ba fii di canc mayen man tamit ma canc mayen lan ngay wax sénégalais yi parce que aussi ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci milieu bi dañuy dëkkal foo xamante ni à chaque instant dëkkuñu fa euh, ba tax na ñenn ñi bu ñu génnee peut-être bët bi ñuy xoolee ak bët bi nga xamante ni moom la suñu mbokk yi di xoolee du doon benn. ñu ñuy ñu ñu ñuy ñu ñuy jàppale aussi te xam ne ni ñun suñu dëkk rek bu ñu gis bu ñu génnee mm-hmm. di wéy parce que juste dañoo bëgg lu neex sénégalais yi mm-hmm. dañoo bëgg lu neex suñu dëkk mm-hmm. nañ ñuy jàppale te xam ne ñun ay ndaw lañ ci yoon la ñu nekk te xam ne ni ñun aussi dañoo yore ay xool comme ay ñoom ay nit ay nit njaay lañ comme ay ñoom lu loo wax mu génn ci xool ci xool lay dugg te xam ne ni juste dafa am benn mbubb bu ñuy sol mais après mbubb boobu ñun ay nit jaay leen comme ñoom mm-hmm. donc nañuy xool mooy di xool di xool bu baax lu ñuy lu ñuy lu ñuy taxé nit ki envers envers moom en personne quoi comprendre nga mm-hmm. nañ ñuy jàppale daal te xam ne ni ay xale lañ dañoo nekk ci nekk ci yoon te xam ne ni xale daal mooy juum xale mooy def lu xale daal mooy juum mooy def lu ne nekkoo leen ay nekkoo leen ay xale ay xale yu ay ay xale yu farantu ay xale yu am kii di génn guddeeg yooyu ngeen ne xale ngeen mooy nuy juum en tout ay xale lañ xale moomin la nañ ñu soutenir ñu ah ba pare di nuyuwaat baa ñoom aussi bañ ma biñ biñ jàppee ba tey bàyyiwuñu ñu ngi may jàppale bu baax ah xam di jàppale seen doom bàyyi suñu dëkk bi ñun moom lañu am moom la ñuy namoo <laughs> di la nuyu bu baax di la di la nuyu yow tamit xaw ma di la di lan laay waxati sax di la jaajëfal bu baax ah di am contact en plus di nuyu ñëpp ah di gërëm ñëpp di am kontaan voilà merci beaucoup yaakaar naa ni waxtaan bi gàtt na mais am na solo parce que lu ñu bëggoon a mu leer ci bopp Sénégalais yi leer na ci bopp Sénégalais te aussi tamit euh, elle a bien le macha allah di ñaan yàlla na sa borom defar gën la defal jàmm carrière bi gën a yegg fa sore sori nga bokk ci artistes yi nga xamante ni ci réew mi fu ñu tuddee euh, Youssou Madjiguène Ndour tudd Wally tudd Siri Diop tudd bu ndaw yombul nag. ne liggéey bu mat sëkk moom moo koy def ak gëm sa bopp di nuyu ki nga xamante ni moo nekk sunu ginnaaw dama yaakaaroon day xarang dakate asma bi la ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu sama chauffeur bu ñaawal bi Amza waaye di aussi di nuyu sama caméraman ci bi di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ci barki Seydina Mohamed merci beaucoup